salaamaaleykum euh, DG Aliou Mara euh, ginnaaw bi élection yi passé euh, ngeen am défaite fii si si Sicap Liberté tey ngeen woote woon réunion di def na nar a dem lii si élection législative bi tey mën nañoo mën nga dellu si réunion bi tuuti dama ko waral. waaw maa leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax réunion bi tey li ko waral ñu ñi xam te ñun ñooy responsable APR goxu commune Sicap Liberté dañoo ñëwoon tey. pour faire euh, un diagnostic ak évaluation si réunion bi euh, élection yi passé mon élection municipale quand xam te Benno Bokk Yaakaar daf ko perte euh, mais tamit daf ko perte mais perte bi bien Bokk Yakar a si en troisième position te Benno Bokk Yakar, musul que troisième position fii élection soit dañuy gagné bu ñu perdu, au pire des cas nous sommes deuxième bi nak ñu jël 3e ñu ñëw nak tay doon ko naqarilu ñu xam que li fi xew c'est un problème c'est une erreur de casting parce que mo am erreur de casting mo am motax mu fekk ñu fi bu doon sax nekkon nañu deuxième mënoon nañu wax ne que c'est l'effet euh euh euh, euh taxaw euh, yeewi yeewi askan bi xam nga ñu né c'est l'effet yeewi askan bi boule on est deuxième mais on est troisième loolu mo garawal affaire bi. léegi comme que si ay élection législative lañ jëm te ñu élection législative ñu gagné suñu gox moo Donc, on a appelé à la remobilisation ñun ñi xam te ñooy responsable ci commune bi ak militants yi ñu une élection ku ko bëgg gagné da ngay bien que c'est au 31 juillet 2022 mais ñoo bëgg a remobiliser les troupes ñi nga xam te ñoo fi nekkoon démb ak barki démb ñëwaat ñu dajawaat xool naka la ñuy toogee waxtaan affiner sunu ay stratégie pour que incha allah au 31 juillet 2022 Benno Bokk Yaakaar ñu ne vive fii dans les Sicap Liberté loolu mooñ ñu tax a jóg. waaw moom mooy nekk si wetu kii di président Macky Sall. waaw xam nga président Macky ñun ñëpp ñu ngi si kanamu ñu ngi si wetu président Macky Sall erreur am na mais loolu la ñuy bañ mu répété wu. xam nga de façon ñun tout ce qu'on a à faire suñu rôle mooy sonner l'alerte wax ne que erreur am na erreur nag day am l'essentiel li am solo mooy nañ ko rectifier et aller de l'avant ñun loolu mooy tax a jóg le passé maintenant c'est le passé waaw. il Sall dafa rectifier le tir avant élection législative non élection législative beneen affaire la bokkul ak élection euh, municipale élection législative foofu ay député la ñuy samp waaw mais li am solo ñun on appelle à l'unité ñu ànd ñun ñëpp ñu defaraat taxawaay bi pour que élection législative ñu ne vive Benno Bokk Yaakaar fii dans notre commune ñun loolu moo ñu tax a jóg. damay doon dernier mot bi si euh, pour militants yi. dernier mot bi mooy mobilisation nañu mobiliser wu nañu ànd fóot xol yi bien que am na ay frustration si militants yu bëri mais nañu fóot xol yi. ñu xam ne président Macky Sall mooy suñu président te ñëpp gis nañu ne président mag Sall bu dee liggéey rek liggéey na. du ñu toog fii weer te dégguñu président mag Sall mi ngi inauguré lii wala mi ngi inauguré lële barki démb moo si mujj ñu inauguré stade bu rafet boo xam te Afrique fii ñëpp ñooñu fi ñëwee. mu nekk fête bu rafet ngeen gis fi ay talent di football africain ñëw fi football mu neex ñëpp la fête était belle yàlla def ñu gagné coupe d'Afrique xam ñu gagné ko ak président Macky Sall donc président Macky Sall dañ ko wara a pour Sénégal jëm kanam ñun dal lool mo ñu taxaju té lool nak bu ñu fi ñu fi am ay défaite ñun ay victoire lañ ci bëgg am té aussi bëgg nañu am candidat député bëgg nañ fi am candidat député bo xam té te bu ñu amé candidat député dañ am vivre benn bokay fi dans les cap inshallah responsable yëpp nag ñu ngi taxaw ma ngi ak euh, madame Ndeye Ndiaye Dem directrice euh, de la famille et des personnes vulnérables au niveau du ministère de la femme maa ngi ak Omar lii mi ngi nii à ma droite ak responsable yi taxaw fii yëpp ñu ngi mënuma lim ñëpp mais daal nañ xam ne que ñun président Macky Sall mooy ñor te moom la ñu bëgg mu fi am victoire fii dans les Sicap